Euh, salaamaaleykum tey dañuy seet si maître Balla Dièye euh, di président fédération taekwondo nekk champion international taekwondo nekk plusieurs fois champion d'Afrique champion du Sénégal champion de France maître ñu ngi lay nuyu. waaw ah, asalaamaaleykum suñu mbokku internet yi maa ngi nuyu ñëpp. di nuyu pratiquant d'arts martiaux yi surtout et aussi euh, sunu famille mi la famille du taekwondo. Euh, mais taekwondo mooy lan boo ko doon expliquer ku xamul mooy lan. waaw taekwondo euh, mun naa ne sport coréen la mooy Corée du Sud foofu la taekwondo jógee et taekwondo li ñu wax ni wàllu art martial comme Sénégal si lu ñu ko gën a xamee ci ay karaté mais taekwondo ñu koy méngaleel ak karaté volant. mooy ñi nga xamante ni plus souvent seen coup de pied yi la ñuy utiliser muy seen tànk yi euh, taekwondo tamit dinañ utiliser léegi loxo yi euh, moom mooy définition wu taekwondo muy taekwondo mooy pied point le dos moom mooy li nga xamante ci wàllum esprit la ci wàllum euh, xel lay liggéey lu bëri muy esprit le dos c'est la voie mooy yoon bi nga xamante ni foofu la nit ki war a jaar pour mën a am benn dundin bu bu simple bu baax ci àdduna wam donc loolu mooy taekwondo mais discipline la boo xamante ni ci Corée du Sud la jógee waaw. mais taekwondo ban apport la mun a amal nit ki nit ki. waaw taekwondo mun na defar nit mun defar nit ci bu baax a baax surtout nit ñi nga xamante ni dans la société parce que kuy wax armation euh, objectif premier bi moom mooy defar nit ki boo jëlee xale yu ndaw yi ci dojo yi plus souvent lu ñu leen di enseigner lu ñu leen di jàngal. dinañ leen jàngal euh, aar seen bopp dinañ leen jàngal aussi ci wàllum discipline dinañ leen jàngal aussi ci wàllum euh, naka la ñuy comporté woo ci société bi mun naa ne euh, discipline arts martial yi plus souvent day defar nit bi nga xamante ni il est prêt dem ci société bi il est prêt nekk nit modèle ci société bi boo xoolee pratiquant d'arts martiaux yi moom lañ leen di afficher souvent day nekk nit koo xamante ni dafay dafay simple du du bëri histoire fu histoire nekk daf koy moytu euh, du nekk ci yoon bi tamit di xeex du nekk tamit ci ci mbedd mi di kaas wala affaire yooyu te loolu yëpp euh, armation mooy def ba def loolu ci nit ki donc mun naa ne tey boo xoolee pays asiatiques yi pour pourquoi ñu naan dañoo discipliné parce que dañ koy jaarale ci armation yi. donc tey boo xoolee tey ci Sénégal metre de salle yi dañuy defar day nit yoo xamante ni ay nit modèle lañ donc mun naa ne tey euh, arts mun na nekk jumtukaay bi nga xamante ni mën nañ ci yar ay xale mën nañ ci yar sax mag waxatuma la xale donc euh, mun naa ne euh, loolu mooy bénéfice bi ak njëriñ bi à part l'aspect éducation bi muy jox xale yi ci wàllum tàggat yaram bi dinañ ko jox tàggat yaram dina ci mën a aar nit ki ci lu bëree bëree bëree bëri ci wàllu santé am deuxièmement tam ci wàllum aar parce que moyen la boo xamante ni pour se défendre la tamit parce que nit ki tamit dans la société il faut savoir aussi se défendre l'autodéfense mooy par exemple nit ki à n'importe quel type de situation di nga mën a xam naka ngay aaree bopp ci n'importe de situation donc loolu yëpp ci taekwondo dinañ ko ci fekk te boo xoolee même suñu force de sécurité et de défense aussi dañ leen di jàngal arts martiaux dinañ leen jàngal taekwondo naka la ñuy leen boo xoolee tey muy gendarmerie muy la police ba ci force d' intervention yi ñoom ñëpp dañuy jàng armation donc euh, mun nañu euh, englobé na lu bëri tamit donc muy ci xale yi ci wàllum éducation ci mag yi ci wàllum santé bi ci wàllum défense mun na laal ñu bëri donc loolu mooy taekwondo aussi. Euh, kon bu ma la déggee li président de la république wootee ci citoyenneté. taekwondo wala arts martiaux yi en général war nañ ci mën a apporter seen contribution. je pense que côté boobu su gouvernement bi utiliser woon les arts moo tax d'ailleurs sax ñun taekwondo commencé nañu mooy la taekwondo à l'école tey boo xoolee école yu comme ni mel ni école Rahma école Hyacinthe Thiandoum wala école yi nga xamante ni bëri école dañuy pratiquer euh, sport étude donc moo tax léegi ñu def léegi euh, taekwondo à l'école donc euh, tey ku mel ni école école Rahma. franco islamique la mais xale yëpp tenue taekwondo la ñuy sol c'est-à-dire que heure bu ñu paree jàng dafa am heure boo xamante ni si la ñuy euh, def seen pratique taekwondo loolu yëpp dañ leen di tàggat si lu bëri ci wàllum discipline ci wàllum rigueur ci wàllum euh, mën a maîtrise de soi loolu yëpp dañ ko fiy jàng donc président de la république loolu mu woote ci wàllum citoyenneté je pense que su gouvernement s'accaparé woon les arts di ko mettre dans les écoles dina mën a defaraat yeneen nit dina mën a defaraat ci ci wàllum éducation bi nit ñoo xamante ni ce seront ce seront ce des gens yoo xamante ni ay nit modèle la ñuy doon donc je pense que tey suñu utiliser woon les arts martiaux dans les écoles dinañ ci gis beneen njëriñ encore ci xale yi tamit waaw. Euh, maître ñëw ci beneen côté mooy maintenant yow yaay président fédération taekwondo. waaw euh, mais nit ñi dañuy dañ la xam ci ku am carrière bu gudd macha allah euh, ci ci ci ci. ci au niveau international mais yow avec tout ça tu as pu faire tes études tu pu euh, def ay études supérieures lan mhm. nga doon allier sa carrière international parce que bëri woon amul tu as participé dans tous les kii grandes compétitions waaw boo xoolee euh, man euh, dama nekkoon toujours fan sport étude yàlla dafa def ne lu ñu naan sport universitaire jaar naa ci muy IASU gagné naa ci plusieurs fois nekk ci champion euh, beneen bi tamit euh, mooy sam papa daf ma doon poussé surtout ci collé jàng étude sport étude sport te loolu c'est très très très important ci carrière nit ki tamit parce que nit ki sport dafa gàtt carrière bu gàtt la bu jeexee rek il faut nga am yeneen bagage pour mën a continuer aussi sa dund tamit donc man loolu taxoon ma doon allier les deux li ma ko gënoon facilité mooy bi ma nekkee en ba Euh, dama am sama bourse pour dem France mais bi ma demee France euh, si la gagné le tournoi international de Paris ñu intégré euh, à l'équipe de France mais bi ma demee foofu noonu ñoom ils benn cursus boo xamante ni boo nekkee sportif dañuy wax le sport aménagé kii sportif de haut niveau la mais dafay jàng di euh, di def sport am donc looloo ma permettre ma mbokk ci euh, programme boobu noonu sport étude nekk ci tamit si la jàngee ba am sama ay lijaasa yu bëri et puis mais yàqalu ma dara sama jàng am naa samay heure d' en même temps samay heure euh, samay heure dem jàngi su ma amee ay compétition tamit n'empêche que dañ ma doon euh, rattrapé samay examen yi et tout ça te mosuma woon jàng yàqal si sama jàng moo tax ma ne sport étude c'est très très important ci nit ki parce que léegi sport de haut niveau tamit dafa jaar dafa laaj nga jàng tuuti parce que il faut nga am yenn maîtrise yoo xamante ni si wàllum technique boo ko deful doo c'est très difficile pour nga percer dans le haut niveau te loolu tamit moo tax ñuy maa ngi ñaax parents d'élèves yëpp que ñuy bañ privilégier que l'aspect sportif nañuy boole seen doom yi ñuy jàng en même temps aussi di def euh, le sport parce que étude sport c'est très important yàlla def na ne pare naa sama carrière sport gagné naa ci euh, raaya yu bëri ku mës a def euh, gagné naa quatre fois champion d'Afrique deux fois au médaille au championnat du monde en 2009 et en 2013 nekk sept fois championne de France universitaire gagné tournoi yëpp muy Open de Paris US Open Open de Corée Espagne Hollande foofu yëpp lépp loo xalaat ci àdduna gagné naa ko ci Open yi. gagné médaille d'or aux Jeux africains gagné médaille de bronze aux Jeux olympiques universitaires dem jeu représenté Sénégal aux Jeux olympiques nekk plusieurs fois porte-drapeau de l'équipe nationale du Sénégal ci ay compétition euh, mun naa ne gagné naa lépp ci àdduna ba mu des ma médaille olympique benn médaille olympique la am muy euh, universiade moom la ñuy wax les Jeux olympiques universitaires donc euh, te loolu yëpp yàqalu ma sama jàng n'empêche que am naa tamit sama ay diplôme sama diplôme universitaire yeeg yëpp yàlla suñu borom moo mën a dellusiwaat sama dëkk euh, jàppale xale yi ba pare di di di détecter yeneen champion ba pare ba nekk sama reconversion ba nekk président de fédération ñu ñëw ci reconversion boobu léegi yow yaay président fédération taekwondo taekwondo du point de vue sportif maintenant nan la nan la nan la tëddee actuellement au Sénégal. bon nu mu tëddee Sénégal euh, ñu ngi ci phase bu baax ñu ngi ci phase bu baax parce que président bi fi jógee am na lu bëri lu mu ci liggéey muy euh, maître Ibrahima baax am na lu bëri bëri bari lu liggéey parce que nekkoon nañ ci yenn euh, quelques problème mais def na ba taekwondo bi ñu réuniraat def na ci ba ba telle sorte que taekwondo bi tey on peut dire que euh, grand maître yëpp ñu ngi suñu gannaaw tamit euh, du ñu jàppale maître de salle yëpp boole léegi boo xoolee taekwondo dans plus de quatorze ligues yëpp ñu ngi marché au Sénégal région boo munti jël ci Sénégal ñu ngi marché tey taekwondo ñu ngi ci phase bu baax parce que yàlla def nañu am nañ ay am nañ ay petites catégories yu baax parce que loolu mooy euh, permettre ñu mën am ay relève bu baax actuellement nii ñun jeexal nañ suñu carrière mais am nañ benn relève bi nga xamante ni tey euh, vraiment mun naa ne macha allah am na liggéey bu important bu ci entraîneur yi def avec la direction technique ba tey bu taekwondo demee ba am ay numéro un mondial ku mel ni Moustapha Kama nekk Allemagne euh, ku mel ni Ababacar Sadikh Soumaré gagné chaque champion olympique nekk champion d'Afrique ñoom Matar Diaw donc et cetera et je pense que loolu day permettre day wax ne taekwondo tey ñu ngi ci phase bu baax. bi yàlla defee nag ma jël fédération bi il faut que ñu amaat eh, beneen vision man sama vision mooy à la quête de l'olympisme à la quête de médaille olympique te loolu dafa am benn programme boo xamante ni moo lay permettre yow pour nga mën a accéder foofu noonu ci programme boobu nag laa nekk di dérouler nànk-nànk moo boo xoolee cette saison dañu def compétition yu bëri mais dañ ci am yeneen touche yu ñu indi mooy touche comme sur le plan international eh, def compétition de ñuy relever suñuy plateau di relever suñuy niveau di relever aussi aussi euh, en termes de moyens euh, cadeau yu ñu joxe xale yi ba pare di yóbbu nit ñi ay stage l'équipe national du Sénégal léegi lañ temps yi passé lañ jógee Corée ñëw Sénégal gëj na am dem nañ Corée def fa stage de quinze jours ñeneen ñaa ngi dem ay open di ñëw les arbitres aussi ils sa forment ils reviennent donc loolu yëpp boo gisee dynamisme boobu yëpp c'est pour bâtir benn taekwondo à l'ère mondiale donc man ci côté boobu laa gën a accentuer avec mon équipe te boo xoolee suñu programme bi ñu teg programme bu bu lourd la mais programme la boo xamante ni il faut que ñu dem ci ci côté boobu sens boobu na pour mën a décrocher des médailles dans les grandes compétitions looloo tax ñu def euh, programme bu lourd def maximum de compétition maximum de formation maximum de détection ba d'ailleurs boo xoolee semaine bee passée la pare suñu détection pour 2022 120 jeunes yoo xam ne détecté nañ leen pare donc li ci des mooy piloter leen continuer à travailler avec eux continue léegi maintenant di leen euh, pousser à la quête de performance dans les compétitions dinañ leen engagé seen entraînement yi dañ koy suivre euh, seen euh, progression dañ koy suivre ak seen étude aussi dañ koy suivre fii ba 2022 loolu loolu yëpp boo gisee programme boobu yëpp c'est pour aller vers la quête des médailles. Des médailles. effectivement mais euh, mais y avait y a un constat qui est génération de la génération de 2001 par exemple yéen Afrique vous rafliez titre yëpp. yéen yéen ñëpp ñoom ñoom El Hadj Ndaw ñoom Ndongo ñoom ñoom ñoom Côté ñoom ñoom ñoom Payagna tous ces champions la yéen vous vous dominez l'Afrique est-ce que yéen a ngi liggéey pour rayonnement boobu ñu amoon ci taekwondo bi ngeen ngeen ñu dellu fa waaw génération boobu moom la ñuy wax génération dorée aussi <laughs> boobu génération boobu tamit euh, boo gisee ñu doon raafle lépp Afrique parce que dafa amoon euh, période bu ñu tolloon ñu ñëwoon nekkoon ci benn lancé boo xamante il fallait que ñu percer euh, Afrique nag ñu bëri yeewu nañ léegi il faut ñu xamee ko noonu pays yu bëri léegi dañu am ay moyen dañu dem mu am moyen ba raw sax Sénégal ku mel ni Côte d'Ivoire ñooñu ëppoon moyen ay jamono ñëwoon nañ ba dab leen ba raw leen en terme de résultat mais instant bi dañoo jógaat encore doole ba créer sax seen centre boo xamante ni nit kuy créer ay centre di jël ay athlètes di leen intégrer kooku moo la ku mel ni Maroc ils ont mis encore beaucoup de moyens seen biir équipe nationale ñun moyens yu Maroc am ñun sax genn wàll gi amuñu sax quart bi donc Tunisie pareil l'Algérie y a beaucoup de pays mais n'empêche que ñun ñu ngi toujours ci l'aspect compétitif c'est-à-dire que suñu athlètes yi toujours des athlètes compétitifs bu ñu bu rek c'est pour aller chercher des médailles moo tax on pousse boo xoolee l'entraînement de l'équipe nationale du a arrêté looloo tax des fois on a des problèmes on a des difficultés parce que c'est la programmation qui fait que athlètes yi mën dem di génne ay médailles le haut niveau du dara c'est la programmation athlète boo ko programmé mu xam ne tel mois war naa am compétition mu ngi topp ci lancé am topp programmation entraînement am bu demee day def résultat donc ñun ci phase boobu lañu nekk moo tax du ñu mës a changer système bi on continue sur ce même système là mais actuellement Sénégal ça va être très difficile mais bokk nañ ci quatre premiers yi boo ci génnee euh, Égypte Maroc Côte d'Ivoire Sénégal day ñëw positionné avec la Tunisie cinq nations yooy boo xoolee yeneen équipe yëpp baax nag mais ñun toujours on se bat pour rentrer ci carré boobu on se bat pour rentrer ci tiercé boobu parce que ñooñu ñooñu ëpp moyen mais n'empêche qu'on les titille toujours tépp kuy dem compétition di nga Sénégal parce que loolu professionnalisme bi nga xamante ni moom na fi suñu maam mag yi bàyyi woon yeneen entraîneur yi bàyyi ko fi ñun tamit ci loolu la ñu continuer yokkaat ci yeneen touche ni euh, dans le haut niveau ah voilà moo tax de telle sorte que suñu athlètes di performer moo tax suñu athlètes yi boo xoolee ñoom ñëpp a ngi nekk en préparation dans les grandes nations aussi en Allemagne en France Espagne États-Unis partout. donc okay. Euh, ci manque de moyens boobu fan yii a presque un mois le Sénégal waroon dem à Manchester pour les championnats du monde mais mu am benn benn incident bu xaw a regrettable. Ah. mooy euh, visa yi. Ah. est-ce que loolu noonu yéen a ngi liggéey pour yooyu bañ leen dara parce que aussi comme ni nga wax athlète. c'est la programmation mais aussi euh, athlète bu war a dem à temps euh, voyager à waaw day jouer vraiment su performance athlète yi te man euh, je lance benn appel les arts martiaux ñoo ëpp médaille Sénégal les arts martiaux encore je le répète ñoo ëpp médaille ci Sénégal. discriminé wu ma nag benn discipline parce que ñun ñëpp ñoo bokk même couleur bi c'est le vert le jaune le rouge ak étoile bi nekk ci digg bi muy Sénégal. mais suñu appuyé wu ci sport de combat mën nañu valoir lu bëri lu bëri lu bëri encore parce que euh, képp kuy génn génn rek fédération bu mënti génn rek c'est pour dañ koy ñaanal pour mu indi médaille parce que suñu ndam la bu ñu génnee dañ ñaan Sénégal ñun euh, waroon nañ dem Manchester championnat du monde yi ça fait mois ñu ngi préparé championnat du monde yi mais problème de visa bon c'est un problème de visa par rapport au pays ñun jëloon nañ toutes les mesures mais pays euh, Angleterre moo difficile pour l'obtention de visa c'est pas seulement le taekwondo bëri na de képp koo mënti Angleterre ñu la c'est très difficile mais bon loolu après euh, c'est vraiment côté étatique je pense que ministère ak ministère des affaires étrangères ñu jéem a xool benn système bi nga xamante de telle sorte que yooyu bañ a dal les équipes yi nga xamante ni athlète bi war a dem xamoo ba xam am nga billet ba xam tey xoolal tey li dal karaté dañu war a dem championnat d'Afrique dans cinq jours mais xamuñu sax ba xam dañuy dem wala duñu dem te pourtant entraîné nañ bay bëgg a dee maintenant athlète bi day toog di nekk ci doute est-ce que dinaa dem wala du dem loolu baaxul ci performance athlète day jouer ci performance ku xam au niveau xam ne loolu day déstabiliser athlète ku xam au niveau xam ne loolu day jouer ci yow nga toog fii di douter est-ce que dinaa dem ba dernière minute ñu jël la paquet la hop nga dem il faut que ñu ñu ñëwaat aussi sur la réalité est-ce que dañuy dem pour gagner ji est-ce que dañuy dem pour tourisme on part toujours pour la gagne man noonu la noonu bopp quoi je pars toujours pour la gagne moo tax ñun on se bat pour vraiment que chaque fois quand on sort on sort pour aller gagner des médailles et revenir pour notre pays parce que loolu mooy fierté dëkk c'est par jour pour dem fële pour hop def lu ñuy def bi ñëw jaar suñu kaw impossible on part pour raison pour laquelle aujourd'hui ñëpp a ngi suivre actualité bi c'est le football c'est la CAN dañu dem pour représenter le Sénégal mais tout le peuple est derrière eux il faut nga wane fulla ak jom suñu devise c'est simple jom fit fayda boo ko defee ci compétition yi tu vas voir kenn ñëpp a lay respecté nit ki boo ko mënee boo ko boo ko mënee da nga wan sa bopp mais les problèmes de visa yooyu yëpp day jouer si performance athlète résultat bi nga doon xaar foofu day wàccaat encore gën a baax équipe yi ñoom dañuy teel dem à loolu c'est un problème d'organisation il faut que vraiment que ñu réorganiser waat xam ne su équipe nationale di compétir il faut que mu nekk dans de bonnes conditions bon appel bi may lancer autorités aujourd'hui le ministère de sports commence nañu comprendre commence nañu comprendre que euh, médaille c'est très important pour le pays trophée est très important pour le pays parce que day stabiliser dëkk aussi ñu ngi ñaanal Lions yi nekk fële ne CAN bi indi fi dina am lu bëri lu mu wàññi basket bu gagné dafay am lu bëri lu muy joué ci population bi ñëpp ay kontaan félicité Lyon yi félicité basketteurs yi médaille dafa am benn importance boo xamante ni certes que athlète bi ko gagné dina kontaan mais autorité yi léegi li ma leen di ñaan mooy ñu gën a gëstuwaat le sport di ñaan le président Macky Sall aussi s'il peut encore même augmenter le budget du sport c'est très très important parce que tamit ministère tamit du sport ak lu ñu ko mën a wax tamit. si le budget n'est pas là c'est très difficile dañuy ñaan que seen budget gën a yokk te seen budget tamit lu mu gën a yokk tamit mu baña dem ci yenn discipline yi nañu xool ñëpp loolu wax ñu bañ a xool yenn discipline nañu xool yéen ñëpp xool ne fii ah mën naa fi jëlee ay résultats mën naa fi jëlee ay médailles naka lañ leen war a mais boo xoolee temps yi ñu ngi def ay concertation yu bëri ak le ministère des sports avec le comité national olympique pour xool dinañ gën a yokk les moyens dinañ gën a euh, pousse performer et je pense que suñu continuer ci lancer bi dinañ mën a attendre à des jours meilleurs à des résultats yu gën a dans l' avenir et je pense que ça c' très important parce que l' du Sénégal C'est bientôt les Jeux Olympiques de 2020, c'est bientôt les Jeux Olympiques de Et il faut commencer le travail maintenant. L'IGBIL, c'est maintenant, pour pouvoir récolter en 2022. ok euh, ñu jeexal euh, interview bi mais ñu jeexal ci comme ni nga wax léegi Lions yi ñu ngi kaan xam naa doo footballeur mais sportif nga <laughs> sénégalais nga ban message ngay lancer au Lions et au peuple sénégalais qui doit être tous derrière cette, équipe là. waaw man euh, message bi may lancer les joueurs de football nañu xam fu ñu jógee nañu xam vraiment fu ñu jógee Sénégal nañu jógee je sais xam nañ ko mais damay dellusiwaat bi benn phrase bu important bu président de la République waxoon avant Lions yi di dem dem leen ci compétition bi comme des vrais lions teranga bi ngeen bàyyi ko fii Sénégal après la compétition teranga bi dina leen fi fekk cette phrase la est très important pour les nit ki booy dem compétition da ngay xam ne man dama dem pour la gagne victoire ak défaite ñoo ànd ku xam compétition nag victoire ak défaite ñoo ànd mais défaite il faut nga daanu ak honneur il faut gagner aussi avec l'honneur nit ki boo ko mënee dama lay wan ne carrément ma la man man su ma la mënee je kaw mets KO direct j'ai pas besoin de chercher de midi à 14 heures parce que lenn rek moo important boo ko dooroon tey 10 0 dañ naan kii moo ko victoire bi rek mooy compter mais nit ki boo ko mënee rawoon ko sa bopp day tax ñeneen ñiy ñëw adversaires yi ñëw am quelque doute yow qualifié nañu en huitième de finale je sais que une compétition est très difficile chaque compétition ak contexte am man kenn rek lay euh, vraiment di ko ñaaxaat mooy le coach Aliou Cissé je sais que vraiment que moment yi c'est très difficile pour moom il faut que ñun ñëpp ñu nekk tam derrière lui derrière les athlètes pousser leen galvaniser leen pour wane ne que le peuple sénégalais est que des fois ñu sànni leen yenn critiques yi c'est normal c'est pour juste que suñu équipe nationale gën a donner à fond mais les gars benn affaire rek leen wax on part en huitième de finale chaque match maintenant c'est une finale il faut se battre il faut se donner le meilleur il faut joxe sa bopp gëm sa bopp comme li ñuy wax rek on nous tue déshonore pas vous êtes des lions battez-vous jusqu'à la fin après li si des ñu bàyyi ko ci loxo yàlla yàlla moo xam